mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, mes très chers compatriotes, après plusieurs mois d'échanges dans le cadre du dialogue national, comme au cours de plusieurs rencontre en tête-à-tête avec le président de la République, après une analyse lucide et sereine du contexte international, du contexte africain, sous-régional et national, la nécessité nous est clairement apparue de répondre positivement à l'appel du président de la République pour une union de l'ensemble des forces de la nation pour mieux faire face aux défis du moment. D'autres intelligences m'avaient suggéré de choisir un autre chemin le chemin d'une opposition radicale tentant d'utiliser les interrogations et les inquiétudes légitimes des populations et en particulier de la jeunesse, née du contexte de crise, pour fragiliser le régime en place et en tirer des gains politiques immédiats. Je respecte leur intelligence et leurs analyses, mais je n'ai pas choisi ce chemin-là. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Au plan international, ce n'est un mystère pour personne que les plus grandes économies, nos plus grands partenaires, ont souffert et souffrent encore du Covid-19 et de son cortège de conséquences économiques et sociales. Aux États-Unis, première puissance mondiale, des milliers, des millions de personnes sont en train de perdre leur emploi et de perdre leur maison faute de pouvoir payer leurs échéances. En Europe, qui accueille l'essentiel de notre diaspora, la situation est identique, une chute drastique de leurs économies. Et d'ailleurs, le premier impact immédiat pour nous, c'est que les transferts de notre diaspora en direction du pays ont également connu une chute considérable, au point que des transferts inverses du pays vers notre diaspora soient devenus nécessaires. C'est dans un tel contexte où également dans notre sous-région, des conflits et des tensions extrêmement vives déchirent les classes politiques qu'il nous appartient de rendre grâce au Sénégal qu'au moyen d'une discussion sereine, longue, profonde, dans plusieurs cadres, notre classe politique qui représente 85% de l'électorat soit parvenue à s'entendre pour mieux prendre en charge les défis du pays. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la classe politique seule n'y suffira pas. La situation exige que toutes les filles et tous les fils du pays soient mobilisés et tendus vers le même but. Redresser notre économie, rééquilibrer notre société, consolider la paix civile et la stabilité de notre pays, qui est, qu'on le dise ou non, l'un des rares îlots de stabilité dans notre sous-région. Et nous devrons également assumer notre responsabilité en direction de nos autres pays frères pour consolider la stabilité là où des conflits politiques ont déchiré la classe politique. Face à l'ensemble de ces défis, nous avons donc fait le choix responsable de répondre positivement à l'appel du président de la République d'unir l'ensemble des forces du pays. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de faire ça, ce n'était pas facile. Je remercie l'ensemble des autorités religieuses de notre pays pour leurs prières et pour leur prescription en notre direction de toujours œuvrer pour d'abord consolider la paix et la stabilité du pays de manière à rendre possible toutes les autres activités, qu'elles soient cultuelle, kulturel économique et sociale. Je vous remercie. jërëjëf kon asalaamualeykum mbokku Sénégal ginnaaw bu ñu leen nuyoo yéen ñëpp sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu ñoo ngi leen di gërëm yéen mbokku taskatu xebaar yi ci teewaay bii ngeen teew fii pour tatan suñuy kaddu jëm ci askan wi mbokku senegal yi nek ci bir rew mi ak yi nek ci diaspora ginnaw waxtan wu yàgg te yaatu tollu ci lu wara mat fukki wer ak danaka biñu genné ci élection présidentielle yi yeena ngi ne fi ci sama kër la ñeenti candidat opposition yi daje wax yo résultats. nañu yoyu résultat ndax jaarul ci président de la république wote dialogue né nañu jël mbir yépp waxtané ko ci suñu muy politique bi muy mbir ñu tann ay kilifa di nuyu saluer patriotisme au passage muy Famara Ibrahima ak général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 duguna yitam ci processus bi nga xamni ci la jëlé décision bi ñu jël bo adina bi fu ci bari sen économie neurmeluna ndah ndax mbass mi États-Unis mi nga xamni ño ëpp doolé ci walu économie ay junni nit ay millions nit ña ngay ñak sen liggéey bis bu nek ñu leen di génné seeni kër ndax ño fay sen loyer wala ño fay seeni traite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 te soxla nañu sax ñun ñu dimbali leen en retour ci Afrique yi itam ngeen gis ne fu ci bari yëf yaa ngay tàkk yëf ngay bax pouvoir ak opposition instabilité ñëpp di xalaat Sénégal yàlla may ñu ñu waxtaan ci dal ci ci ba xam d'accord fas ko ñu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

yenen citoyen yëpp buñ bankee sen loxo di len sétane pour ne nañu génn réew mi ci situation bi du sotti ñepp ci wara duggal s'en seen loxo classe politique bi amna responsabilité génné ay xalaat wané yoon wané direction né li kat bu ko défé fi économie bi tollu ñu naan croissance bi moins 0,7 la mais bu nawet bi baxé xeyna mu doon 1 wala 2 té démon nañu bay sen 7

président de la république Senko koo ci xaré fay dem te xamni man na fa ñak bakanam liko ko def devoir au service de son pays policier bi ñu yebal mu am vingt ans Takagul jabar wala mu ngi soga a jabar ci buntu adina ñu ne gang yu dangereux yi ak grand banditisme bi ak drogue bi demal xex ak ñom set fu ñu nekk nga ci mu bu ca démé mën lu ko ko def devoir vis-à-vis de sa nation waaw ki yalla jaglel nak mu am capacité nek leader politique Wara a sant ñooñu ñu def loolu ñak ci sen bakkan mom bu fekente ne ben risque rek lay jël moy ñu nan carrière politique am dana nef ni dana xajam dana nangam nangam señ bi loolu wax deug yalla yomb na muñ nak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

xew-xew bi c'est xew-xew bi xew-xew bi c'est vrai mooy xew-xew bi xew-xew bi c'est mooy lii nga xam ni moo am di remaniement gouvernement loolu mooy xew-xew bi mais nag dafa am lenn lu ñëw dal ci suñu kaw dal ci kaw Sénégal muy génn àdduna professeur Iba Der Thiam comme nag am nañu opportunité mën a jaale askan wi yëpp jaale njabootam jaale ay jegeñaaleem jaale ñi mu àndaloon ci wàllu politique ak ñi mu doon liggéeyandool ci université bi jaale waa Sénégal yëpp loolu vraiment di ko ñaanal yàlla mu dajale ko ak njëgalam ak yërmandeem xare ko aljanna yi gën a kawe di leen sant vraiment di leen gërëm jërëjëf Est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cette question ah. Voilà loolu moo doon euh, conférence de presse euh, Idrissa Seck wala euh, déclaration bu Idrissa Seck mi ngi noonu na devoir moko bolé euh, donc mu dem liggéey ak ki nga xamné moy président Macky Sall donté journaliste yi bëggoon nañ poser ay questions amal ay laaj ginnaw cadeau Idrissa Seck yoy gis ngeen na mu mujjé déclaration la def rek daal di dem mi ngi kon Idrissa Seck mo don amal conférence de presse fi ci ci euh, këram gi nga xam ne moo fare euh, ci euh, point E mi ngi noonu ba gannaaw bi ko Macky Sall